Ah, monsieur si na nanga def. waaw maa ngi fi rek yéen a si jàmm. ñoo ngi si jàmm may fàttali ne Mballo ja Thiam yow yaa jiite And Gueusseum ah, tey jii ñu gis ne ah, cas communautaire yi ñu ngi leen di gën a lim fan yi ñu néew fan yi ñu wees donc And Gueusseum ngeen wax ne dañoo war a def confinement total ci yenn agglomération yu dakaar lan moo waral wax jooju. waaw li ko waral yomb na parce que gis nañu ni réew yi nga xam ni feebar bi la fa la woon faagagal fa faagagal fa ay nit yu bare. Euh, amuñu woon beneen pexe bu dul commencé confinement bi fexe ba nit ñi du ñu jonjoo du ñu jege yaaw bu ko gisee aussi dafay tam am na ay résultats gis nañ tamit ci Sénégal gi fi euh, am na gox yu nga xam ne nii ba toogee ba nga xam ne tere nañu dem beeg dëkk bi donc am na ay résultats. waaw léegi nag bu fekkee ni benn cas importé rek moo duggoon Sénégal indi fi indi fi problème bi ñu am yëpp ba fi ñu toll fii ñu xam ni tant am na benn cas ci Sénégal rek donc feebar baa ngi fi parce que benn cas moom mooy wàllu euh, nit ñu bari moo tax nag ñu ne Dakar fu mu nekk nii mooy épicentre bi parce que am na gox yu bare yoo nga xam ne ni feebar baa ngi fa te ma ngi fay law donc li gën mooy ñu confiner leen gis nañu ni couvre-feu bi euh, am na euh, lu mu lu mu ci am njeexital bu baax sax parce que guddi gi léegi kenn dematul kenn dikkatul. mais nit ñi bu ñu demul guddi yi demul demuñu ci guddi aussi bëccëg bi fi ñu demul woon yëpp ñu fay dem dafa mel ni donc li ñu doon def ci guddi gi ñu ngi ko yàq ci bëccëg bi ah ba nag comme que léegi fexe ba nit ñi duñ ko wàllante loolu mooy gàllaaj gi fu mu nekk ni ah nañ fexe ba nit ñi duñ ko duñu wàllante waaye yenn quartier yi da ngay dem mel ni ñoom nekkuñu sax ci àddina bi wala gis ñu li fi xew ak yenn marché yi nit ñi dafa mel ni daal fexe bi ñenn ñi lay dal duñu daal loolu loolu musiba la jàpp ngeen ne confinement ci yenn agglomération yenn agglomération ngeen euh, foog ne foofu la ñu def confinement bi. waaw ñuy saytu feebar bi xam nañu feebar bi fu mu nekk fu mu gën a bari ak fañ fañ koy lijjantee dañoo bañ rek tudd benn gox ñu naan pour pourquoi muy tudd suñu gox pourquoi tudd beneen gox ak yu mel noonu parce que Sénégal moom. bon euh, yenn wax yi moom boo ko fi waxee rek coow lay indi bu amul benn njariñ or defar rek moo ñu tax a jog mais autorité yi xam nañu ñi nga xam ne war nañ leen mën a confiner am nañ ko pour le moment parce que toog toog quelque quelque ay fan yoo xam ne xëy na da ngay lëlu bu feebar bi dem yoonam moo gën ñu wóol bu ku nekk di dox sa soxla feebar bi fi jógee te bu fi xasee ba toog li ñu endémicité loolu musiba la loolu grave lay justement li jëm ci cas communautaire yi ndax foog ngeen ne euh, dina gën a mën a canaliser. non cas communautaire yi sama loolu mooy njàqare bi au moins cas importé mën nga xam ni diw bërëb sàngam la jógee ñan la àndaloon man avion la duggoon ñu seet saytu loolu mais ka communautaire koo ci gis du xam fan la ko jëlee waaw du xam fan la ko jëlee te boo bëggee remonté fu mu ko jële fu fu ne nga ko fa te nit ki mënu la wax gis bi yëpp fan la nekkoon ak la la defoon fan yi yëpp du ko xam booba tax na loolu mooy njàqare bi nag pour éviter nag ka communautaire yooyu def naa ne ñi nga xam ni faj nañ leen ñu toog nañ leen ñu leen di faj ñeneen ñi ñu confiné leen moo gën de fait virus bi amul tànk euh, amul ay laaf du naaw demul fenn nit moo ko jël yóbbu ko nit def nañu loolu moo ci gën parce que ka communautaire mooy cas bi moo gën a compliqué cas importé. gis nañ ne yéen waa ànd gësëm ay euh, mën nañ ne sax weer buñ ko xayma euh, ba mbir mi dooree ci woon ngeen seen kàddu ne dañoo war a gën a aar personnel de santé bi tey jii gannaaw euh, cri de cœur boobu fan ngeen ci toll. waaw xam nga ñun tamit li ñu war mooy protéger population yi mais protéger yi suñu bopp parce que ki nga xam ni moom mooy faj moom mooy seet ki faj moo koy saytu bu fekkee amul protection loolu mu si parce que moom bu daanoo. Euh, waa këram yi aussi dañuy daanu ak dëkkandoom yi ak ñi muy faj ba tax na personnel santé bon protéger ko loolu mooy protéger système bi ci boppam o gouvernement bi nag euh, ay la yooyu na def na ci ay jéego yu bare bare bare jéego def na ci ay jéego yu bare am na matériel yu bare ñu yóbbu ci gox yi wante matériel yi bu ñu ko séddoo ci biir district yi ak poste de santé yi donc ñoom ñu ko war a yor liñ lim bi ñu yor dafa néew parce que bu fekkee ni jox nga ñaar fukki masque ak juróom benn infirmier par exemple mais loolu bari na ci lim ñaar fukk ak wala même cinquante ñaar fukk ak juróom mais boo xalaatee ni infirmier bu nekk bu solee masque ñetti waxtu rek la war a sol masque bi génne ko sànni ko wut beneen masque donc boo ko joxee ñaar fukki masque ak juróom fekk moom am na ci biir postam lu mat juróomi ni wala fukki ni xam ne ñoom ñoo seq liggéey bi bu ku ci nekk takkee benn masque ñetti waxtu yi nag ñu sànni ko xam nga kon vingt cinq masques boo ko joxee tamit euh, du du leen du leen mat pour la journée waaw donc loolu mooy problème yi ak alcool gel bu ñu la joxee ñaar wala ñetti flacon te yow saa yoo dara rek war nga jox soit saa laal dara war nga laal alcool gel xam nga loolu donc dafa manqué donc am nay jéego mais comme que gouvernement bi geneen na alal ju mat sëkk pour loolu nañ jël alal bi def ko ci loolu mu am ëpp bay tuuru moo gën muy manqué parce que kenn rek mën na wàll ñeneen. ci gestion bi sax la ñuy desandi nan nga gisee nan nga jàngatee gestion. Euh, bi autorité yi di def ci euh, li nga xam ne mooy Covid 19. waaw xam nga fu mu nekk nii euh, li am solo nekkuñu fi naan lii la ñu waroon def wala li la ñu waroon def mais li am solo mooy ñi ñi feebar ñu ngi leen di gis. Euh, ñu ngi leen di faj yàlla def na aussi ñu ngi wér te liñ ci am aussi ci ñi ñi bakkan yu rot aussi euh, bari na parce que même bu dee benn sax barina mais ay la yoon melul mel ni comme yeneen réew yi réew yi kon ba léegi mun nañu wax ne ñoo ngi maîtriser feebar bi wante nag maîtriser feebar bi mooy bu fekkee ka importer yi ñëwul aussi nañu fexe ba cas communautaire yi ñu fexe ba mu yam fi bu boobaa ñu toog ñu ne Sénégal toog nañu meer wala ñaar weer yoo xam ne dégguñu fi kaa dégguñu fi dara tant que amuñu loolu donc ñu ngi ci xeex bi xeex bi xeex bi agagul donc amuñu benn droit di bàkku danañ gërëm nag ñëpp ñi nga xam ne xel ni ñoo si jàpp muy trékatu santé yi ak ñu nekkul santé ak ñeneen ak yeneen département ministère yi ñu ngi gërëm ñëpp wante nekkul waxtu pour bàkku parce que làmb ji jeexagul. fagaru moo gën faju mu doon seen plan d'action bu yees lan lay wundu. waaw fagaru moo gën faju moom beneen kuréel la bu nga xamee ni moo ëmb yeneen kuréel parce que ñun ànd gësëm SUTSAS la ak SUDEDEV ak SAS santé démocratique wante nag euh, am na yeneen kuréel yu ñëw seet si ñu ñu ne comme que yéen a ngi jox feebar li ngeen wax am na am na njëriñ population bi bëgg nañu def parti euh, euh, plateforme ay citoyen bu nga xam ne du affaire syndicat lañ fay wax du affaire politique maanaam nekk ñu fi digg nañ ñu gouvernement bi nekk ñu office pour def revendication mais ñu fexe nan la ñuy jàppale ñun suñu suñu suñu réew suñu askan pour que ñu gaaw a génn ci feebar bi loolu la ñuy wax plateforme citoyenne te ñi ko ñi ñëw nag fekk si ñu wala ñi ñu àndal ñoom aussi ñu am solo lañ ci dëkk bi parce que association parents d'élèves yaa ngi ci waa waa diaspora ñoo ngi ci UNACOIS mi ngi ci cercle des intellectuels mi ngi ci association pour la sécurité des patients mu ngi fi euh, association des infirmiers d'État ak yooyu ñu ngi ci. ak yeneen kuréel comme Sénégal suñu priorité ak yooyu ñoom ñun ñëpp nag ñetti mbir rek moo ñu tax a jóg mooy fexe ba ba chaîne de transmission bi ñu dagg ko maanam feebar bi duñ ko wàllaate fexe ba liggéeykat yi ñu protéger leen mbaale ñu ñu aar leen ñi nga xam nag au fi feebar bi am na lu mu lu mu wàññi si ñoom maanaam impacté nañ leen ñu fexe ba na lañ leen di gunge pour que li ñuy ñàkkoon ci feebar yi wala feebar waral ko ñu ñu ñu saafara loolu loolu mooy njëriñu plateforme front moo gën faju mhm, ngeen di dox ci sensibilisation. tey jii ndax bàyyi ngeen xel ne sénégalais yi li ngeen leen di wax ñu ngi koy jëfee. waaw am na ñu koy jëfee wante am na yoo xam ne jëfewuñ ko loolu mooy mooy problème bi parce que tant am na kenn ak ñaar ku jëfewul rek day pour day nekk risque pour ñeneen ñi parce que benn rek day indi yeneen yeneen i ka donc loolu moom ñu ngi koy jëfee ci ñu gën a bari parce que couvre-feu bi amoon na ay jàppal bàyyil ci njëkk bi mais finalement ñëpp xam nañ ni couvre-feu bi donc am na njariñ. waaw mais nag aussi fréquentation comme ni ñu ko waxee euh, jëfewuñ ko parce que quartier populaire yi ak yooyu euh, yenn marché yi vraiment euh, la fa nekk daal ba léegi daal nekkul lu war a mën a nekk warul mën a nekk daal ci dëkk bu bu nga xam ne mi ngi avancé ci bu baax ci feebar bi. Mballo Thiam ñu ngi doon wax tamit ne ay vaccin dinañ ko andi Afrique ngir tester ko jëm ci Covid 19 yi gis nga coow li mu indi tey yéen lan mooy seen position ci wax jooju. waaw moom vaccin moom ak garab moom saa yu ko defaree rek euh, il faut ñu essayer ko wante nag lool ci am solo loolu vaccin yu mos am yëpp coow dana ci am waaye ñun Sénégal ñun euh, yaakaarul ne yaakaar nañu duñ am problème yi ñeneen ñi am parce que fii am nañu benn comité d'éthique maanaam comité bu nga xamee ni même boo bëggee def recherche da ngay laaj autorisation. ñu wax la li ngay gëstu lan lay doon ban njeextal la am donc vaccin bu mel noonu aussi balaa ñu ko fi indi aussi autorité yi danañu laaj ndax nangu ngeen ko buñ ko nangoo ñu dooral comité d'éthique bi moo ci wax waaye def naa tollooguñ foofu te ñu suñ ñu suñu jàkkaarloog problème yu mel noonu te professeur Seydi euh, am na lu mu taxawaay bu mu ci taxaw ak euh, ñetti yeneen gëstukat yi nekk ci Sénégal yëpp xam nañu seen seen seen seen seen leen di xaar ci ci ci responsabilité ci mbir mu mel noonu en tout cas ñun nanguwuñu loolu. Euh, tey jotagul def naa pour ñu wax ci yenn wax yi. li nga xam ne moom mooy traitement bi euh, ñu ngi ci wax tey jii euh, ñu ne Sénégal nañu ubbi Médecins Sénégal coow laa ngi tamit bëgg bëri lan moo ci seen taxawaay. non suñu taxawaay bu taxawaay bu leer nañ la nee nañu Médecins Sénégal nañ ko ubbi parce que Médecins Sénégal usine la defar garab. te garab yi nga xam ne Sénégal mi ngi koy consommé yëpp boo xoolee quatre-vingt pour cent maanaam juróom-ñetti garab ci fukk yu nekk juróom-ñetti garab yi bitim réew lañ koy jëlee mm-hmm. bu ñu amee usine nag bu nga xam ne fii ci biir dëkk bi mi ngi defar garab dañ ci war a téye parce que amul benn perte moo tax ñu ne gouvernement bi bu mu jéem a xool lan la employeur yi employé di laaj wala lan bi di laaj waaw am na nu muy demee sax fat naa ko wax am na nu muy demee sax dañ ko war a nationaliser. parce que usine boobu non seulement mi ngi def Nivaquine moo nga xam ne àddina bi yëpp ko soxla fu mu nekk nii mais bu loolu Nivaquine moom usine boobu na def lu naan terpine maanaam garab buy faj ci sëqat doon na defar aussi vitamine C soxla nañ ko ci grippe ak ci même même coronavirus soxla nañ ko fa ak fer bu nga xam ne jigéen ñi dañ ko soxla yenn saa yi bu bu ñu wanee lor ak même sax déggoon naa ni sax même cardinal doon nañ ko fa defar te amoon na rupture cardinal moom moo doon si poids amoon na ay soluté sax yu mu doon def waaw donc usine bu mel noonu kay munoo munoo ko tëj ba pare dem di jéggaani garab yooyu di ko jëndi feneen muy gën a cher loolu dafa dafa yanul maanaam te ñun dañoo wax tout le temps que industrie pharmaceutique bi nañ ko développer même pharmacopée bi dañ ko war a développer aussi pharmacopée traditionnelle bi parce que garab yi aussi dafa am njëriñ munoo lu nekk rek nga dem jënd ko bitim réew te te boo ko amulee fii mu nga nga ay musiba si ay ay ay ay malade yi fi nekk di ko soxla. Euh, monsieur Thiam euh, journée mondiale de la santé ñu koy màggal le 7 avril 2020 bi. Euh, mhm. tey jii Sénégal gis nañ ne yenn maladies yi dañ ko relégué au second plan. ban jàngat ñeen ci def. non non defe naa ne relevé wu ñu relevé wu ñu maladies yi ci au second plan maanaam delluwuñu leen kii parce que. Euh, feebar bi dafa ëlëm ñëpp ba nga xam ne xel yi ñëpp ñu ngi ci wax di ci def waaye terewul aussi hôpital moom ubbeeku na bon di faj ñi mu war a faj parce que pañ ñeneen aussi ñu ngi leen di fac c'est vrai waaw ah, léegi nag euh, li ci xaw a mooy ñi nga xam ne dañoo amoon feebar yooyu dañoo ragal ñëw feebar bu bees bi dal leen ba tax na ñu si gën a bari ñoom ñoo ñëwatul waaye hôpital fa mu nekkoon ma nga ma nga nekk foofu ba léegi ah na nit ñi xam ne aussi du ñëw hôpital rek feebar bi jàpp la parce que am nay jël nañ ko ci hôpitaux yi. wante nag euh, euh, feebar yi eh, yàlla nañu fi yàlla euh, jël ak jàmm ak salaam waaye feebar moom ak jàmm ñoom ñoo ànd wante nag ñoo xam ne xëy na daal feebar bi am na solo waaye yeneen feebar yi tamit ñu ngi fi te ñu ngi leen di saytu dañ ko ne di leen saytu incha allah. kon ñoo ngi jël urgence yëpp. waaw waaw loolu kay moom lépp ñu koy jël nit ñi kay moom même même ñi ñuy faj feebar boobu sax bokk la ki fi ñu leen di fajee waaw foo gis ñuy faj feebaru ñi am coronavirus bokkuñu ci fi nga xam ni fa la ñu fajee ñeleen ah, dañ leen ber ak beneen personnel bu nekk ak ñoom donc guddi ak bëccëg noonu la demee. Mhm. donc du ko ñëw rek jànkoonteeg feebar yooyu déedéet fi leen di faje ak leen di seete du benn. d'accord bi Sénégal àdduna bi mooy feebar boo xam ni nee nañu amagul garab mhm. amagul vaccin garab gi fi nekk dañ koy dafa mën a faj rek waaye du garabam gi tax ñuy wax. ah ñu ne comme que boo ko moytoo doo ko am kon nag nit ñi moytu ku nekk bàyyi xel ni yow yaay sa médecin wu bopp mais yaay sa médecin wu morom tamit parce que bu fekkee yow mun nga risqué feebar bi jot la aussi xamal ni bu la feebar jotee aussi dina jot ñeneen wala dina dal ki nga xam ni moo lay faj wala sa njaboot donc kan warul mën a fay feebar buy buy buy buy gaawee reyaate noonu moo mel nu mel noonu. ba tax na nag ku ci nekk discipline euh, lañ la laaj responsabilité ñu fexe ba aussi lépp li nga xam ni euh, ñu ngi koy wax waa di ko wax. pour mën a fagu ñu fagu moo gën di faju parce que paj mi yombul te te te te te te gaawewul noonu tamit donc loolu daal moom la ñuy wax pour pour dénkaane daal di ko dénk sama bopp ak mhm, nga ne loolu dina yomb ci Sénégal li ngi leen woo a ah Sénégal moom dara yombul ci moom senegal kay au contraire loo loo loo bëggul ñu def ko sax bul ko wax. te nag euh, nit ñi nag ñu xamee ni xel ni euh, suñ ko defee moo leen moo gën ci ñoom parce que njariñ li ñu wax euh, waaw balaa nga ne naam nga ne fa te njariñ loo fekkee defe naa ne même bu leen gouvernement bi joxul dara wala defu leen dara sax ku ci nekk war na mën a yar sa bopp ci loolu xam ni réew mi donc ñoo ko bokk te kenn mënul war a mën a faagagal euh, wér-gu-yaramu kenn. monsieur Mballo Dia Thiam merci beaucoup. may fàttali ne yaa jiite ànd gësëm ànd gësëm mi nga xam ne dafa taxaw thème tey ji euh, di prôné lii di confinement